Cheikh Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. Euh, Cheikh Fall nga bokk ci collectif ex contractuel de la Sénélec récemment ngeen def euh, point de presse pour wax euh, jafe-jafe yi ngeen am ak Sénélec est-ce que mën nga ñu expliquer ci yaatal lan mooy seen problème ak Sénélec. waaw ñun suñu problème ak Sénélec mooy dañu amoon benn protocole d'accord ak ñoom. signé par euh, mam Matar Gueye bu ONG Jamra ak madame Innocence Ntam Ndiaye si biir protocole d'accord bi nag jël nañ si ñaari vague de quinze mais deux mille vingt deux bi dañu waroon am benn quota mais jusqu'à présent ñu ngi nekk si njeextalu deux mille vingt deux ba léegi mënuñoo am dara lu leer si waa Sénélec concernant le quota. Mhm. loolu lañ doon réclamer te ku ci doon dox moo nekkoon ay Aïdara ak madame Innocence Ntame Ndiaye te ba léegi nii du lu leer loo xamante ne nii vraiment mun nañ koo teg suñu loxo xamu ñu nag problème bi exactement ci kan la loolu la ñuy réclamer moo waraloon ñu ànd ci ak waa FRAPP France dégage. oui. Mm-hmm. Euh, problème mu ex contractuel yi biñ ko yàggee dégg si Senelec bi euh, yàgg nañ ko dégg en fait euh, mm-hmm. donc yéen quatre-vingt-neuf yi des mm-hmm. mooy problème mu sept cent employés Senelec yi ñu fi doon dégg ba léegi waaw naka naka la demee woon ak concours biñ organisé woon pour que at mi ñu jëlaat la si yaatal nga expliquer ñu carrément ñu xam waaw xam nga concours Senelec moom li ñu koy dégg ñu koy ñu koy wax bari na mais des fois Senelec day organiser benn concours boo xamante ne nii vraiment concours bi day inutile parce que moom c'est lu ma mënul lu ma mënul nangu daal xam nga mooy lan soxna si gis nga li ngay organiser concours day fekk amoo ay agent yu doy pour nga mën leen a jël mais Senelec saa bu organiser concours rek am na ñu ñu mën a jël soo xoolee biir Senelec la fa nekk ci ay prestataires kenn mënu leen a wàññi donc man dama doon gis ne ñoo ñu war na leen a war a mën a recruter ba pare ndax ña ngi fay def liggéey bu am solo. Hmm. bu leen recruter nag ba ñu jeex biir Sénélec ba pare bu boobaa mun nañ ne Sénélec war naa mën a organiser ay concours Sénélec organiser ay concours dara lu dul am nañ fa ay jarbaat am nañ fa ay doom yoo xamante ne ni bëgg nañ leen a dugal. te ñooñu ñu bëgg a dugal suñu ñëwee agent prestataire yi fa nekk nii di liggéey ñoo leen di former loolu kese moo tax ñu organiser concours bu dul loolu Senelec soxla soxlawul a def benn yoon concours. ndaxte lépp loo nga xamante ne nii mooy mooy liggéey biir Senelec rek prestataires yi ñu nga fa duñ fa jeex te ñu ngi koy liggéey kon lan la ñuy dee def concours. donc concours bi kon gis nga ni euh, euh dañ ko organiser woon rek pour am ñoo xam ne dañ leen di dàq ci ci Senelec. lu leneen lu dul loolu. Mhm. am na ñu ñu bëgg a dugal. xamuñu naka lañ leen di dugalee ñu ne dañuy organiser concours. mais bala ngay dugal kay day fekk bala ngay def concours day fekk matle woo mais Sénélec matle na fekk ay agent ma ngi foofu prestataire yaa ngi foofu du ñu jeex amul Sénégal agent Sénélec booy dem te doo fa fekk prestataire léegi yéen euh, ak exactement fi ñu toll nii euh, lan ngeen bëgg euh, CD yi ngeen di laaj intégré Sénélec lan ngeen bëgg exactement ak ñaata ngeen mhm. ñun Séné CD yi lañuy la ñuy laaj ñun dañu bëgg intégré Sénélec te bariwuñ jamonoy Matar Cissé Matar Cissé da doon jël par deux cent par deux cent jëlaat quatre vingt treize mais Pape Mademba bi tey là on est nombre de quatre vingt neuf mënu leen sax jël te budget Senelec attan na loolu boo xoolee depuis depuis bi mu commencé recruter ci deux mille vingt deux bi ba tey li mu recruter mat na ëpp na quatre vingt neuf et ñun on est de quatre vingt neuf li ñu koy demandé mooy mu suñu problème des ex-contractuels une bonne fois pour toutes ñun xeexuñu xulloowuñu sànniwuñu ay xeer ay sénégalais lañu lañu comme ñëpp te Sénégal bien public la donc na régulariser le problème des ex-contractuels le très rapidement possible ñun loolu rek lañ koy ñaan ñu gis ni tamit euh, FRAPP bu ñoom Guy Marius Sagna ñu ngi leen di soutenir ci ci xeex bi yéen a dem euh, gis waa FRAPP pour ñu jàppale leen wala waa FRAPP ñoo ñëw pour jàppale leen ci xeex bi. mosuñoo bàyyi heure bu ñu jugee pour xeex sax day naqarlu lan moo tax teelu ñu ko ko yëgal. Mm. ba mu mën ñëw jàpp kon kooku mu ñuy bàyyi xel bu baax. yéen tey jii lan mooy seen plan d'action lan ngeen fas yéene def ngir quatre-vingt-neuf ex contractuels yi desoon euh, Senelec euh, ñu mën leen a euh, intégré waa ci biir société bi lan ngeen fas yéene def. waaw li ñu fas def mooy def benn conférence de presse bu mag ànd ci ak Mame Matar Gueye ak ONG Jamra ak Guy Marius Sagna Frapp France Dégage bu ñu jugee ci loolu bëgg nañu def benn grève de faim buntu direction générale de la Senelec. bu fekkee ne nag fii ba mhm. semaine prochaine amuñu dégguñu dara ci waa Senelec loolu moo nekk suñu plan d'action mhm. grève de faim buntu direction générale de la Senelec tey ji yow noo gisee Pape Demba bi tey yor bi mu yor euh, Senelec est-ce que moom euh, DG bu baax la waaw wala déet waaw xam nga bu ñu nee diw dafa baax moom ay ay say mbokk ñoo la ko njëkk a wax waaw mais ñun ñi nga xamante ne ni tey ñun yaakaaruñ ku dul ku dul ku dul Senelec xamuñu ku dul Senelec bëgguñu lu dul intégré biir Senelec comme ni ko ñëpp di defee ñun mënuñoo wax ne Pape Demba bi tey dafa baax. Hmm. parce que Pape Demba bi tey bu doon ne dafa baax wala jàpp nañu comme ay frère wala jàpp nañu comme ay doom wala xam na ne ñun yàgg nañ ci Senelec ñii nekk ci ay sept ans ñii nekk ci ay dix ans am na ñoo xamante ne nii boo leen dugalee tey bu ñu dugalee bu defee deux ans Pape Demba Bitèye di dawloo nombre quatre vingt neuf ñooñu mënuñu wax ne Pape Demba Bitèye dafa baax vraiment mënuñu ko wax. te yéen tamit da ngeen ne Pape Demba Bitèye dafa politiser Senelec ay mbokk kaw la am rek lay daal di euh, utal ay poste foofu. waaw loolu moom ñëpp teg nañ ci seen bët. Mhm. boo xoolee vidéo yaa ngi fi audio yaa ngi fi yuy wax ne carrément majeure partie waa Senelec yëpp Kaolack lañ dëkk. deux mille vingt deux bi lu mu ci dugal ci waa Kaolack rek kenn mënu laa wax mu toll te loolu nag loo xamante ne nii la président de la république war na ko yëg tex parce que dafa war a xam ne Senelec bien publique la ñun ñëpp am nañ ci wàll rawatina ñun ñi nga xamante ne def nañ fa ay at xamuñu lu dul Senelec Senelec moo ñu jëlee ci suñu ay école intégré ñu dem ba benn moment mu ne day organiser concours te boo xoolee concours boobu ñi mu ci jël xaaj bi yëpp amuñu moyen ñu nekk ci biti amoon moyen mu ëpp ñu nekk ci biir am amuñu moyen léegi euh, yéen lan ngeen doon liggéey Senelec euh, mhm. fa ngeen doon liggéey nekk ay euh, seen liggéey mm lan la woon exactement waaw Senelec nag liggéey bi dafa dafa dafa yaatu am na ay am na ay ACI am na ay ATC am na ay ay ñu nekk ñu nekk bureau am na ay contrôleur am na ay agent polyvalent boo xoolee daal ci collectif bi lépp loo xamante ne ni Senelec am soxla na ko rek mu ngi ci biir collectif bi euh, d'accord tey jii euh, est-ce que euh, contractuel yu Senelec est-ce que ñu ngi leen di fay lu baax waaw wala déet condition de travail yi naka la demee ci Senelec ak ñi nga xam ne ñoom ñooy contractuel yi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw Senelec moom bu bu bu weesoo prestataires yi nga xamante ne nii ñoo fa nekk di liggéey di toog ay cinq ay ay six ay sept mois duñu fayeku mm-hmm. bu weesoo ñooñu contract contractuel Senelec ak embauché Senelec fay baax la ñu am am nañ daal salaire yu baax am nañ am nañ salaire yu baax jusque prestat mm-hmm. akku prestataires yi baaxul ci Senelec ndax ay prestataires ñu ngi fa di liggéey bala ñoo fayeku dina def juróomi weer mais loolu lan moo ko waral ñi ñi nga xam ne dañuy toog ay six mois du ñu fayee ko. waaw loolu loolu loolu nég lenn lu dul négligence. Mm-hmm. parce que tey Pape Demba Bitèye entrem daf ne woon dina fexe ba loolu dootul amati Senelec. Mm-hmm. bi muy ñëw waaw bi muy ñëw dafa ne woon dina fexe ba loolu dootul amati Senelec te ba jusqu'à présent loolu mu ngi am Senelec ba fii ma toog di wax ak yow loolu mu ngi am Senelec Senelec amul Senelec Sénégal booy dem te doo fa fekk prestataire muy jooy. prestataire boo ko fekk mu ngi jooy. Mhm. lu mu tuuti tuuti toog na trois mois yoo xamante ne fayeeku. maanaam toog bu yàgg bi daal doo fayeeku problème la au niveau de la Sénélec. au niveau de la Sénélec. Euh, tey jii am ngeen appel bu ngeen di lancer président mm. par rapport ak seen situation. Mm-hmm. fas yéene ngeen dem marché jëm palais wala def noo xam ni daal euh, mm-hmm. njiitu réew mi dina taxaw mm-hmm. euh, ci seen jafe-jafe. parce que yàgg na bi ngeen di yooxu boobaak léegi. waaw li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy mettre lu ci président de la république lañ koy njëkk a lu parce que président bokk na suñu seetaan dossier yi dossier quatre-vingt-neuf boo xamante ne nii janvier daaw ba ren ñu ngi koy jooy te président newul na yëg na ko ndax madame Innocence Ntam Ndiaye su ko yëgee rek président dina ci jot mm-hmm. te boobu ba léegi amul benn réaction buñu jot bu jóge présidence lu dul bi fi defee benn sortie ba ñu jàpp ñu plateau laa xamante ne nii am na fa loo xamante ne nii président am nañ ci ñu woo ñu ne dañ dañ dañ dañ leen a donc appel bi ñuy def maanaam mooy président de la république comme moo fi wax l'emploi et l'employabilité des jeunes te ñun ay jeunes lañ nekk ay sénégalais mu wax fi ne na directeur généraux yëpp ubbi seen buntu bureau yi ubbi seen téléphone ndaw ñi donc ñun yaakaar nañ ni lii ñuy jooy war nañ koo mën a régler sax te du jëm te du jëm kaw te bu te te du ñu ne président yëgu ko yëg na ko xanaa kay da ko yëg ba pare dëgg ci tànkam donc ñu ngi def appel ci monsieur le président de la république di ko xamal ne ko ñunu ndaw les ex contractuels de la Sénélec yàgg nañ ko yàgg nañoo jooy si moom keneen ñu régleel suñu problème bi cette fois ci nag bu ko réglewul grève de la faim bu ñuy def il soit bu direction général wala ministère de l' intérieur wala présidence foofu amuñu ci gain de cause bi ñu fa jóge et très prochainement lañ koy def maanaam du yàgg. voilà Cheikh Fall euh, maa ngi lay jaajëfal. Mm-hmm. may fàttali ni bokk nga ci collectif des ex-contractuels de la Sénélec maanaam ñi nga xam ni euh, ñu ngi doon liggéey foofu ca Sénélec euh, mais nekkatuñ fa.